هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر رديت عن المولى تعالى الذي ربى وادي وأغناني وأكرم به ربى رديت عن المولى تعالى الذي ربى وادي وأغناني وأكرم به ربى فأنيت اليوم عبدا بذكري وأن يطوفنا أو النار والسماء نبس لقى لله عبدا مرتلا لذكر حكيم عن جناب الهدى سربا أرتل ما دمت حيا وأكتفي auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim euh, mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaare di ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare di siyaare Serigne Mountakha Bassir xalifa général di ko siyaar bu baax di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér naka noonu ñuy siyaare mboolem njabootu Serigne Touba gi yëpp ak mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yëpp waaw ñu xam ne rek bis bii nga ñooy amal fii. di bisub sant Serigne Touba jëm ci bisub màggal gi nga xam ni mooy màggal gi ñuy waajal euh, mu di bis boo xam ne si Serigne tuubaa moo ko woote daan ni képp ku koo xam ne sama mbég sa mbége bu bis bi ñëwee nga santale ma suñ borom moo tax ñu amal bis bi di ci sant suñu borom euh, nga xam ni fépp fu ay taalibe nekk rek bu bisub màggal gi bu weeru màggal wi teroo rek dañuy waneel seen mbégte ak seen engagement ci bis bi nga xam ni mooy jublu moo waral fii ci parcelle unité cinq daayira yi féete fii muy daayira xidmatul xadim ak daayira mafatihul bisri ak daayira matlubul fawseyni di ko amal fii ci unité cinq ñu koy amale ci ci ay anam wu wu mucc ayib nga xam ni li ñu jiital mooy njàngum alxuraan ji di ñu xëyee ba léegi ñu ngi fiy jàng ay kaamil Euh, ñu ngi fii ci ci ci di jàng kaamil yi di jàng alxuraan yi di ko ubbee bis bi ndax Serigne Touba léppam alxuraan la ndax da daan jël alxuraan ji teg ko ca kaw di di di di ko parfum di ko di ko parfum di di di ko way di ko way waaw banaa kënsil kitaabu wal xadiisa wal adab laa jam fiddatan wala jam sëb kon kuy dem ba alxuraan naa naa naa naa lépp sama lépp alxuraan mooy sama ursu ngànjar kon kooku ku fonkan alxuraan la moo tax fépp fu ñu nekk rek taalibe sëriñ bi li ñuy def dañ koy ubbee alxuraan bi ñu ngi nii di jàng alxuraan bi ca suba ba léegi ñu ngi ci ak xasida yi tam ñu ngi ci waaw ndax bis bi noonu rek lañ ko bëgg amale muy jàng alxuraan ak xasida waaw nu xam ne nag képp ku ñëw rek nga xam ni liggéey bii ñuy def nii ak jaamu yàlla la gu wér boo xam ne si jaamu yàlla gu nangu la buñ ba tey kuréel gi itam mi ngi nii di waaj a barkeelu muy kuréelu sélection bi nga xam ni daara yi koy amal ñoo koy bokk ñoom ñëpp euh, ñoo koy bokk ubbee bis bi ndax bis boo ko wootee day fekk ni yaa ci jiitu waaw ku ñëw fekk la ca waaw ah, ko bëgg amale rek da koy tàmbale ku ñëw rek fekk la ca ànd ko ak yow moo waral ñu fas yéene amale ko noonu jàng alxuraan ak xasida loolu rek lañ ko war a amale kon ñu xam ni ku yegg si ku ñëw rek nga dugg ci alxuraan ji jàng ci alxuraan jàng ci xasida yi sant Serigne Touba ndax lii moom mbégte la te mooy lépp daal kon ñu daaneel foofu kàddu yi bàyyi waa kuréel gi ñu ñu ñu ñu fësal seen ولي كن بكن ربي ولي وسيس تفضل علي اليوم يا ربي بالمنى بفرد وفيد يخجل الوبل منسبا إليك ولي السنة البيداء يا من وقد تبا ليسرف نوز القوم والتسقني بها مواسي وابل السيارك والعباد ليسرف كوز القوم والتسقني بها di leen màggal yi ñëpp ci bis bu tedd bi mu suñu safar bi nga xam ne ñoo ngi ko bokk ak suñu mbokk taalibe waa Bichri ak waa Fawzeyni ak ñun waa Xidma waa di wax si xasida yi rek muy soxnay waa Bichri ak soxnay waa euh, Xidmatul Xadim def nañ fi ay durus yu xaw a takku lu jëm ci wàllum euh, xasida gi ñuy wax si ndiidi ak euh, tuxfatu ak mawaayibu ak yeneen yu mel ba si wakaana soxna yi moom jàmbaare nañu lool ci ci ci wàllum durus bu baax soo bari ñu ciy góorgóorlu ñu ngi def tamit seeni i werd yu yu am solo. waa comme ni ma ko waxee sànq rek ne soxna yi moom dañoo jàmbaare lool ci wàllum durus bi ndax teyoo tey def nañ fi nekk def na fi lu tolloog juróom mbaa lu tolloog juróom-ñaar ba ci fukk sindiidi wala tuxfatu wala yu ni mel daanaka ñoom tuxfatu beeg sindiidi bi lañ gën a favoriser. moo tax ci lañ nekk di durus def nañ ay lim ci ci sindidi bi ci tuffatu bi ak ci waakaana bi tey daal yooyu laa gis ne moom lañ gën a jël def tamit ay lim ci ay salaatu ala nabi julli ci yonente bi comme que noonu lañ ko bëggee ilahi wa huwa rahmanu wa huwa rahimun xaalilil amaanu alhamdulillahi alal kitaabi sabil musibili daab sayidina muhammadin xayril wara man xaadali xidmato suwara summa salaatullahi wasalaamu ala lasi minni lahu aqlaamu sayidina سفيئنا المخدم عند الذي تسكو لديه خدمي kon ñu ngi lay tuubal bu baax kon day mel ni Serigne Moustapha moo war a def waxtaan waaye Serigne bi dafa war a am ay yitte yeneen yu mu war a dox yoo xam ne si mënta ñàkk ndax teewaayam rek bu fi teewee rek ñu gis ko rek loolu ak defaru la ci ñun kon day mel ni dañ koy jox kàddu gi rek mu mu yëkkati ay kàddu ñaanal mbooroo mi bu ko defee ñu wéyal liggéey bi ndax xaw naa xat lool waaye dafa def yitte ju am naa ni nag mbokk jullit yi mbokk taalibe yi lii sens bu rëy la ni ko sëriñ bi yi doon jëlee kàddu wax ndax kenn ku ne xam na sëriñ Fallu Mbakke moom Sëriñ Tuuba dafa waxoon ni lillaahi qawmun ida hallu bi manzilin hallan nada wa hallat fil jawi anwaaru yàlla de am na aw nit ñoo xam ni fu ñu teg seen tànk bekkoor jóge na fa xéewal rekk a fay fat fi xéewal rekk a fay ñëw te yàlla boole na ci jëmm ji ndax deretu Sëriñ Tuuba la sëriñ Touba ma liggéey woon liggéey bu rëy ba ba nu am añ gu rëy gii ndax bu dul woon ak demam gii wolof nasaraanu te kon billaahi ñépp dem niiraan kon ki ñu tee dem dem safara muy cheikhul xadim sëtam direkt moo teew ci jotaay bi muy sëñ naa Mbacke moom Cheikh Mourtala Mbacke moom sëriñ Touba ñoo ngi lay ñaanal Mbacke nga yàgg fi lool te ànd ak wér jotaay bi kon jotaayu xéewal la jotaayu naataange la kon ñu sant ko yàlla yàlla dogal na nag kon niñ ko waxee dafa am tey jii am na mbuur gee am na ñu ko fa soxla woon di wax mu ñëw waaye dama ni ko ah sëriñ Sam dey présenté naa la ko fële ca Touba muy Sam mii moom moo sàkk woon deretu sëriñ Touba ñëw ci jotaay bi ba ma ko waxee sama xel daj la ndax xam ni nga mel ndax sëriñ Touba dafa waxoon ni zurriyatan tayyibatan tajtahidu tujaddidu nahjal Mustafa tajtahidu yàlla may ma set yu baax yoo xam ni yoonu lislaam yoonu yonente bi ñoo koy sellal te yow ci nga bokk kon nag damay ñaan nga dem fa nga teew mu bàyyi yitteem yëpp xat-xati jamono yëpp ndax mu ngi waajal dem tuubaa yi tam ngir waajal màggal gi ndax kuy teertu ay gan fi mu toll nii war ngaa dem ak ni yàlla bindee jamono ji nii waaye dafa bàyyi lépp ngir jëmmi sëriñ Sam mii ngir sama jëmm kon nag ñu di leen ko yëgale noonu waaye bu dul woon xat-xat yi dafay toog ba sëriñ Moustapha mii nga xam ni ñoo yend woon waxtaan ba waxtaanam jeex mu ñaan ñu doog mu doog a yeweeku waaye kon ñoo ngi koy jéggulu sëñ Moustapha di ko jéggulu mbooloo mi di leen xamal ni noo loolu rekk la sëriñ bi nag sëriñ bi nag moom bu teewee fokk rek comme dafa maa jox ndigal fokk rek ma def juróomi minit ci wax li ko tax a jóg ndax ki ko tax a jóg kenn rek la muy sëriñ Touba te kooku moo jaralu ne moo jaralu ne ndax ba mu liggéeyee liggéeyam bu rëy ba te ba muy dem moom képp moo demoon kenn toppul ci ginnaawam mu taxaw naan xusuuriya xalat wal ahlu an ni tafarraqat li mat illazi anhu lmadihu qasiru ah waaye sama pale yaa ngi nii te booba Touba melul nii booba amagul woon ay pale waaye dañuy xusuuriya sama pale yi xalat wéet na wal ahlu anni tafaraqa tàqalikoo naak sama njaboot kenn rek a tax ma di ko def li mat illazi anhu lmadihu qasiru ngir liggéeyal rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne xarajtu yowma sabti saamina asara li xidmati lmuxtaari fi chahri safar nee na génn naa bisu gaawu 18 safar benn objectif rek laa am lenn rek moo ma tax a jóg li xidmatil muxtaar yi ngir liggéeyal kañu tànn ka muy rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fii sëhri safar waaye ba mu liggéeye liggéey bu rëy ba ba ak lam fa daj ci ay nattoog lépp ba mu amee ngana ya yàlla jox ko ci ay ndam li mu wax mooy ijal ruju'i ila qawmi saadatana wal takfina yawma jam'il xalqi niiraana yàlla defal sama dellu ca sama xeet ña sama xeet wa muy sunu texe ñun ñëpp moo tax ku bëgg a ku texe rek sëñ Touba tax kon jërëjëfi sëriñ Touba war na ku ne jërëjëfi sëriñ Touba war na ku ne ndax dafa wax ni ijaal defal rujuwaay sama dellu ilaa xaw mi ca sama nit ña ca Sénégal saadatana muy sunu texe ñun ñëpp wal tag fi naa te na nga nu fegal yow ma jamil xalqi bis ba nuy dajale mindéef ya niiraanaa safara kon benn murit du dem safara ku yaakaar sëriñ Touba rek àjjana nga jëm kon kooku mooy ki nga xam ni kenn mënu koo xam ndax dafa wax ni xaaba maqaami an siwal baaqil qadim wa na ni abdun qadimun laa yarim ku dul yàlla xaw ma sëñ Tuubaa nee na ku dul yàlla xaw ma nee na ñu ngi ñaan yàlla yóbbu nu ci jàmm bi bisu ci bisu màggal gi nee na dina ngeen yëg ni kóllëre gi moom téye na ko te dootu ko bàyyi ba ilaa yawmi diini ba ba nii daje ci kanamu seexul xaddim nee na ñu ngi ziyaare mbokk taalibe yi mbokk jullit yi fi teew yépp waaw yitte jamono nee na comme niñ ko waxee léegi rek yitte jamono rek la waaye dañoo ànd ak yéen dañoo waroon a ànd ak yéen ba yi fi jeex takk waaw nee na mu ngi ziyaare mbooloo mi yépp jërë ngeen jëf sëñ ñëpp ci soo xam da boo demee ba ca biir sax dafa ni mun na ala xaari yi zi urufi bi maa yafuuxu zanna min maarufi mun na moo yàlla na nga xéewale ala xaari yi ci kiy jàng zi urufi sama araf yi bi maa yafuuxu lu kawe nag zanna nag njortam min maarufi ci ay may moo tax xasida gu yéeme la goo xam ne boo ko dee jàng lépp loo bëgg di ko sàkku moo ci gën a gaaw gis nga xasida yi lu ne lu ne lu nit bëgg rekk di ko sàkk mënees na ko jare jaare ci xasida yi ndaw xaadal yi manafihul buldaan yi xat yi la sëñ Tuubaa wax sunu borom dana ma wammatal njariñul réew yi la wax waaye ci barke xasida yi la ma koy wammatale mel ne mu mel ne xaside yi li ci ne boo xoolee xaside gu ku baax kii doon jàng muy jaalibatul maraaxib jaalibatul maraaxib baatu jaalibatu mooy lii xëcc maraaxib mooy xemmem téef yi liy xëcc xemmem téef yi ci lu jege ak ci lu sori fi aajilin ka aajilin li raqi la lii xëcc xemmem téef yi ci lu jege ak ci sori mbooleem looy xemmem bëgg ko xasida kooku mën naa boo xoolee xasida gi non seulement day yar ndax sëriñ bi moo wax ni xattiye yu sillul murida tarbiya lisil jalali wal murida tarqiya samay mbind day yar taalibi bi bëgg yaru boole ko di ko yéegi di ko eggale ci yàlla boo demee fu wax ne wa kitaabatiya rabbi rab bi kulla mutaaliin li wàcci bi gis nga ñaari rabbi yooyu benn bi fuy fiilul amri la impératif la ci baatu cheikhul murabbi la jógee baatu bi mooy sunu borom wa bi kitaabatee defal ma sama téere bii rabbi yow yàlla rab rabbi muy yar kulla mutaalihin képp koy jàng li wàcci bi ngir jëmm yàlla moo tax xasida gi boo ko dee jàng da yar boo ko dee jàng dalay yar waaye xoolal li mu wax xasida gi ci boppam lu gaaw ci eggale nit ci sunu borom la xam nga bu ne bi urmatin ayni tajaawuz abada am man yeluusu biya ayshu abada xoolal booy bind bismillahi rahmaan onze billahi min asheytaani rajiim da def alif def ayin def waaw ayin googu la ñaan yàlla ne ko bi urmatil ayni tajaawus mooy na nga jëllalee abadaa ba faw am man yelusu biya mboolem ñi wéri ci man nanga nga jëllale seeni mbir bul xool seeni mbir aysu abada fu nu mën a nekk xam ngeen luy jëlale mooy nga xam dara ba noppi wëlbatiku bañ ko xool mooy jëllaleel mbiru taalibe yi bul xool seeni mbir bi ay ayni tajaawuz abada am man yolosu biya mboolem ñoo xam ñu ngi weeru ci man na nga jëlale seen i mbir aysu abada fu ñu mën a jublu xat xuttali bil alifil maxfiyi naylal maqamatil ula bi tey waaye sëñ Tubaa kenn du moom xam nga alifil maxfiyi soo koy bind booy bind bismillahi rahmaani rahim dafa am benn alif ci kaw boo xam ne booy tudd booy jàng doo ko jàngaale ci baa bi ngay tàmbalee ci barke alif boobu ci kaw la wax nang ma ci wammatal almaxaama nag mooy cër al ula bu kowe wammatal ma ci cër bi kowe waaye bu tey nag bu ñu taxañ nga xam ne fii ngay tax toog jàngi xasida bi mu yóbbu la fu sore mooy tawaytu tarixal xaw mi waxtam ti daa ihi wali xat-xatal haajaati bi raw di wal bas yi j'ai devancé les élus de Dieu qui ont fait la guerre pendant très et que je les ai dépassés sur la route de mes na gars yàlla yi dañoo xëy ma gontu te ba ñu àggee dañ ma fekk ci kanam yàlla ma toog di leen xaar yajuduni indal maliki muqtadir kullul waliyi lil jinaani yabtahi yabtadir gars yi yàlla yi lu ñu gaaw gaaw bu ëllëgee yomal xiyaamati sëñ Bamba ba na dañ ma fekk ci kanamu yàlla ma toog leen xaar salaatu llazi fi kulli sahrin wa fi safar